dama ñëwoon tey wuy si waa Al Azhar parce que dama toog ba imam mudir woo ma ne ma ustaas yi xale yi dañoo décidé ne yow ren yaay nekk seen parrain sortie promotion bi nii ma ne alhamdulilah alhamdulilah parce que dañu doon parrainer ay lamb alhamdulilah parce que dañu doon parrainer ay concert ak ay xawaare tey waa diine gi wooñu pare nañu ko ñun loolu dañ siy kontaan bi ñu ñëwee indi nañ enveloppe deux cent cinquante mille ak tonne ciment pour jàppale leen ko si jumaa bi ñu tabax wax leen ne ku xam le maire la ministre Matar Ba xam ne dafa social mu ngi waaj tabaski bi mais moom aussi dina si jàpp pour jàppale leen. leneen li may wax rek mooy femmes yi nekk sama ginnaaw ak jeunes yi nekk sama ginnaaw ñoom dañoo takku nekk benn xam ne Fatick du maire moo koy defar mbala ministre mbala président mais ñu nekk si dëkk bi di fi yeewoo di fi xëy suba ngoon ñoo koy defar. et pour ñu defar ko foog ñu raxas xol yi pour ñu raxas xol yi il faut ñu accepter ndogalu yàlla parce que yàlla mooy fal mais benn nguur budul jeex amul budul nguuru yàlla. leneen li ma si yokk mooy lancé naa appel imam yi ak chef kilifa diine yi ne leen am na ñoo xamante ne ñu ngi bugg a taal dëkk bi si ay wax di ñàkk worma suñu kilifa diine yi bu ñu demee ba nit di wax ne waratuñ topp kilifa diine yi ñu demee ba nit di wax ne wàcce kaamil baaxul bu ñu demee ba nit yi nga xamante ne dañ doon woo nit yi pour ñu génn taal dëkk bi ñoom ñu ngi jël seeni doom di leen yóbbu ñuy jàngi yaakaar naa ne sénégalais yëpp yeewu nañ xam ne caaxaan baaxul caaxaan faaxee li am solo mooy liggéey tey président de la république mu ngi woon Tivaouane di lancer les chantiers hôpital euh, niveau 3 bu Tivaouane gannaaw suba mardi ministre des sports Matar Ba dina nekk stade Léopold Sédar Senghor pour lancer travaux yi ñun si loolu lañ nekk. pose première pierre ak inauguration képp koo xam ne bëgg nga Sénégal si loolu nga war a nekk utal ndaw yi liggéey financer famille di pose ay premier pierre pour transformer le Sénégal parce que ñëpp xam nañ ne président de la république bi mu ñëwee dafa créer une nouvelle ville donc di ñaan xale yi nga xam ne ñoo fi doon tari tey yàlla def leen mag mag yu am diine ñu continuer di liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal Sénégal. beneen bi gën a am solo nag mooy ñun dañoo ñëw tey fekk fi sëtu Sëñ Touba mu ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal monsieur le maire Matar Ba pour Fatick Jofa Paam ni ko suñ mbokk séeréer yi di waxee may gërëm ñëpp di sant ñëp surtout la presse locale de Fatick merci beaucoup.